combat de la soirée laa ilaha illallah Briss Diouf a xees Briss Diouf a ñuul Briss Diouf a mooy ba mel ni Xaadim dañ lay war ndooma Briss Briss bañ na Briss bañ na Briss a leen wan ginnaaw ñu ngi koy rokos Briss ak Zeya Zeya Malika Mbooloo Briss école yi Pape Diop Boston ca Pikine ñoo nga ñaari mbër yaa nga ca. ñaari mbër yaa nga ca. dana ko daan moo doon te nuyu naa la. Ah. dina ko daan. ak Zaya. gars dañuy laajte rek. mu dama yàgg ci làmb. taxawal da a wëy. bu daan daan doy na waar de ku ñuul ki wala ku xees ku xees ki lu lu xew aar bi moo xees mooy Géant Malika moo ñuul bu daan ah Brice Diouf daan na Brice Diouf daan na Géant Brice daan na Géant waaye moo doon tëmbër la woon waaye loo sa nijaay a am Babacar sa na ñëpp bëgg la waaye Modou Anta kenn du yow réew mi laa la wax boo laajtee xam nañ ko waaw loolu yàlla def na ko mais noonu la demee loolu am na Modou Anta jàmbaar ca waar wa kon ñi ñu bëgg suñu liggéey tax ñu bëgguñ liggéey rek ku ñàkk jariñu ñu ngi leen di delloo njukkal soppe yëpp nag kenn du ñoom yàlla na seen jàmm yàgg ñoo tax ñu fi nekk waaye ana Rone Rone de mi ngi ñëw man de Rone jaaxal na <laughs> Rone bàyyil tardé Rone daa tardé aka xam masin ah démb tel teel naa ñëw waaye tey. Eh, est-ce que ci lu mu fanaan. xam nga waaw to da lay daan da daan ay eh, bañ na de. lànk na de eh, mu ngay lamb biir ba de lam tooro moyul ah, Antoine da laa bëgg a bët. Antoine mii li nga wax dëgg la bëre kat de. déggoo li ma la day bëre. gis nga feem yi muy def. waaw waaye lam tooro dafa ku technique la nag. lam tooro buuru gerte. te de carrière ma yàgg. Ah, ah, xaw naa yàgg tuuti ci làmb lam tooro. loolu du sotti lam tooro du sotti xattar bi a ah, woy lam daanu na bu yàgg lam tooro buru ba mu daanoo du tey Antoine Mendy du bëre léng yóbbu bëgën si kàmbaaw waa tali foora liis njaago waay liis njaago waay ndaysaan liis njaagoo ngi nii xale jàmm gën si kàmbaaw bi bëgg nañ la. yaa buur bëgg naa la. mais liis xam nga lu ma bëgg tey ma njaago. ma làkkal la njaago. yaa li wax man leen ba yëtin ji. maa ngi nuyu sama mbokk njaago yëpp. di bu baax ankay. Ah, yaa tey mooy loolu loolu. jaaw si beneen yoon mooy loolu naan làkkal. yaa njaago bu gàllee ngi. yaa njaago bu ngi. mais mbo li ma lay laaj. tey koy bëreel. tey général Kéré laay bëreel. xam nga lu lay xaar. waaw jàpp daan rek màgg nañ ci lépp parce que daa lu ci luñ jóge quoi. mbooloo mi lay topp yaa ngi koy gis. yaa ma gën damaa yaakaar dama koy jël yëngaat rek dem ñibbi kontaan continuer men maîtriser. lii sa ngongu kii mooy Liss Ndiago Ndiago bu gàlli la dégguli Ndiago man talaak waaye yàgg maar am na lu ma fay seen ca biir cumukaay la doo ko xoolam jàmm gën la jóge xam nga boo nee jàmm gën xel yi day dem ci sitta Félix bu jàmm gën champion Léo eh Léo Léo maa ngi lay bëggee Léo dama laa gëj a gis xanaa bàyyi bi xanaa ah wax nga dëgg yàgg maar kaay

et qui sont d'une agilité dont je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Et je suis très très admiratif et je découvre aujourd'hui avec un immense plaisir euh, la, la, lutte sénégalaise, les lutteurs et cette très très belle culture. Je vous remercie. Vous connaissez les lutteurs sénégalais Je ne connais pas, je découvre aujourd'hui, c'est la première fois et c'est pas la dernière fois que je viens. Votre amitié avec l'autre là Voilà, ce gosse c'est un lutteur, c'est un, vrai lutteur, un champion, Oui, L'atmosphère de SAT, vous regardez les SAT. Oui, le stade est magnifique, les lieux sont vraiment grandioses. Et puis, ces, lutteurs sénégalais, c'est vraiment des athlètes extraordinaires. Merci beaucoup. Merci, monsieur. kan numéro 2 ñu koy dóor ñu ngay dóor papa kan la dóor nga daanu dinañ la dóor eh, laa ilaha illallah eh góor bu di dóor ci suuf waaw waaw waay papa kan waay waaw waaw ñu dóor nga dëkku dóor yi wër borom ndombo bu dóor ci suuf caaro yi la jógee amet dama ko andi gi ci loone sant Serigne Touba rek gis naa nga mbaat sa mag andi. waaw kilifa gee aye. bu aye ndongo yi dañuy xaar. jet lee dem. jërëjëf gis nga naka mu gaynde. mais daa mel ni pare nga mbër. yaa gën a pare nañ. daa ni pare nga. waaw mu gaaw ah. a tudd mu la bërekat mais du risque. àdduna bi da ngay xoolal ma kii andi si. Eh, waa ji ko xam ki ko andi xam. waaw xaaral ma génn ak kaay kaay. jëlal ma kii. xool ci mu kaay li jëlal ma kii. jëlal ma kële. affaire yi rax na de. rax na séeréer de. bëgg naa la. jaajëf waay. ci loo ne. bàyyi noonu rek s'il te plaît jàpp si rek dëgg. ndeysaan. aa ah, cumukaay la rax na de laa ilaaha illallah ee eh, yàgg maar jibi joola lamba ngay gis de demal ma ci Jordan xanaa Jordan dina wax joo ci loon bi nga wax man na combat ñëw yaa ngi wax man ba ba dara ñëwagul affaire ñëw nag léegi nga am ci kii ba ma la ñëw jaan léegi nga am combat. waaw léegi gars yi nga koy dox nag. tey ngeen am sa waay andi. waaw waaw ñu ngi koy waajal bu baax waajal nañu ko bu baax a baax. waaw lépp mën na yàlla moo ci des di ko ñaan yàlla may ko nga ne gars yi ngi dox sa combat ak. waaw nii nii waaw ñu ngi waroon wax man ak Sokka Sim ak Gora Sock yëpp waaw. bu la gënal. ñaar laa bëgg a jël dama dama dama yàqati fi moom jël na Serigne Ndiaye de. boobu non boobu taxawagul woon de. des taxaw na. ah kon dafa daw kon garaawul dama dama war a may chance kon garaawul. <laughs> yaa góor a soog day neex. maa góor a soog mën naa ko may chance garaawul fi mu toll nii amatuma lu may xaar comme maa ngi ñaan nangu ma jël ci booy rek garaawul. ah waaw comme ba ren bi nga ñëw fa ba léegi amul bàyyi ba léegi. naa la jam ñaar. tey la nga wax la gën a ay ba léegi ñu ngi xaar mais am yaakaar dina baax incha allah jaajëf. booy ñoo ngi jéglu si wor oh xeex ñu ngay xeex de eh. Aliou Diouf Melax daw na jël ko Melax jël na ko dina ko daan Melax dina daan Aliou tënk na ko daan na ko booy Melax daan na Aliou Diouf cargo daan ba toog ci koom daan ba toog ci koom fa la jóge waaw daan ba toog ci koom la ko def ñu ngi koy sotti moom jam teeri ah, ah dix litres <laughs> dañ koy interdit de dañ lay daga xaalis de ndaysaan ñaari mbër yaa ngongu ci géew bi nday saan nuyu naa waa Kayar nuyu naa waa Pikine Pikine ginnaaw raay fa la jël li waree jam teeri waaye ware kayaar loolu mu rango ak xëddeen la lu vert lool ci kawam moom jët li xëddeen la yàgg maar waaw waaye jam am na lu mu samp ca kanamam ngeer lay xaw a nuróol arbitre baa ngi leen di seet yàgg maar sotte ko nañu gàllaaji arbitre baa ngi waaj a soufflé Malick Ngom ay bi waa Malick borom drapeau bi waaye Cheikh Sène Cheikh Lambaye Cheikh Sène ñu naan ko Cheikh Lambaye ca Petersen tey yaa ma solal lakos ak jiin seex nuyu naa la nuyu waa sen waa nuyu sa doomu ndey jib seen ak salaam Babacar bu Mod Lama Mor Diouf képp ku ne Petersen maa ngi lay nuyu avertissement jam téeri daa xëppe arbitre bi nee na ko da ngaa xëppee képp ku ñuy suivre rek nuy nañ la ci Leewtoo TV di jégluwaat encore une fois ci li dagg sàng di direct bi waaw nuyu nañu ñëpp képp ku ñuy suivre yéen ñi nekkoon ci laaj bi di suivre yëpp nuyu nañ leen soufflé na arbitre ba Malick soufflé na jet li Baara Ndiaye la mujj a daan jam téeri tonnerre la mujj a daan ca waaw ñu ngay lewaatoo Jet Li jam teeri Pikine ginnaaw raay la ware moom Jet Li kër wa kër wale ware Kayar moom jam yàgg maar xam nga waa Kayar bu baax ñoo la joxoon ceebu jën Penda Mbay bu neex ba cay yàgg loo ca wax ceeb bu neex sax ceeb bu fatt tere nuyu nañ lebu yëpp waaye nuyu nañ képp ku dëkk Pikine képp ku dëkk Kayar ak la ko wër nuyu nañ Sénégal tey nag waa ndeysaan Mohamed Diop borom Diamonds Events moo tëgg làmb ji waa ndeysaan kon bu ko kenn jaawale ñaari mbër yaa nga ca waaye cay la 15 mars rak yi jat lay bëree soq ak gàmmu gey càmbur dik soo fa jaar waaye Assane Ndiaye day ñëw bari ñi Jibi Ndiaye day ñëw waaw arène nationale du mën a ñàkk Fallou Ndiaye day ñëw du mën a ñàkk jéy day ñëw du mën a ñàkk ñaari mbër yaa nga ca de jet léegi de eh loolu tal de loolu tal de basoka Youssou Ndoye maa ngi nuyu képp kuy suivre Leewtoo TV da ngay jël avertissement boo xoolee jët lii léegi avantage sam bëri na ndax Diam Terry day am troisième avertissement waaw way day am trois avertissement léegi boo xoolee 15 pour cent day dugg ci kase ci reliquam dañ ko koy dagg ah bien sûr te bu combat bi jeexee ci ni day ñàkk ah Malick dina leen gën bëre léegi jët li bu ko neexee mën naa jouer ci temps bi ndax actuellement bëre na bëre bu metti moog jam téer yi jël mënta am avantage na ko ci ay avertissement kon su ko neexee mën na gérer combat am waaye nag loolu du neex internautes yi du neex amateurs yi bu ñu sañoon combat bi day jeex ci bëre waaye bëre nañu ñoom ñaar xeex nañu boo xoolee gis nga jët li dafa dëgër këng jamteeri dëgër këng zaaru combat yi jamteeri faw mu accéléré faw mu waa jël leen koy dàq bu bëggee accélérer da koy freiner ak gauche ak ak croisé droite daw na jël ko wañ mu bañ waaye Diam Terry fi mu ne bëre rek ko ci mën a génne ah waaw parce que su defee lu dul loolu day ñàkk combat bi avertissement yi mu jël a tax. lu ko bëgg a def fàq da ko bëgg bët waaye bañ na gis nga waa loolu bërëm la moom yi waaye jam teer daa mel ni palaam yu bëri jët li da nand door tànk da koy wër gis nga war na ko war na ko da koy buddi da daan da koy buddi buddi mu bañ jët leeg jam teer mu bañ ee eh, combat ngi jët leeg jam teer yi bëre day feeñ jël amagul daan na ko la ilaha illallah jet leg jam teeri bëre tay feeñ jël amagul daan na ko la ilaha illallah cey jam teeri cey jam teeri cey jam teeri waay jam teeri ngi waay jam teeri ngi wallahi wax naa la ko daa mën a